الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki ñu ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ànd ak ñun ci jotaay bii di jotaay yi As-Salafy Ma'al Qur'an ngeen koy amee ci kër gi di la maison du Coran au Sénégal muy baytul Qur'an al Karim fii Sénégal waaye di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ci gunge muy Lo multimédia ñuy jaay lépp loo xam ne jëm na ci électronique te ñoom ñu nekk fële ca Sandaga yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala wàcce ci ñoom ak lanuy jaay barkeb alquran al karim kon ñooñu alquran yëpp yi nga xam ne moom nekk ci suuf waaye di ziar bu a baax waa kër gi di la karim yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ daara yi ñi nga xam ne ñoom ñooy qurraa yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi ahbabul quran ñëpp kër gi seen kër la ñëpp ci yem ñëpp ko bokk képp kuy dund alquran al karim rek soo koo ci numéro bi nga xamante ne moom moo nekk ci moom ngay seen ci écran bi nii di nga yegsi ci kër gi insha allahu taala di leen jot waxtaan ak ñoom su fekkee ne lépp loo xam ne mooy sa xalaat ci kër gi ndimbal boo bëgg a def ci alquran al karim mën nga ko awee foofu insha allahu taala tey si di sunu jotaayu ñaareel bi ci li nga xamante ne moom mooy eh, jamu alquran al karim dajale alquran al karim jotaay bi weesu wax nañ leen maanaal jam maanaam suñu waxee jamu alquran maanaam dajale alquran lan lañ ci namm leeral nañ ko ci jotaay bi passé ñu waxoon leen ne alquran al karim saa borom yàlla daf ko sàmm ba alquran al karim nekkee ca asamaan yàlla seetaanul alquran al karim am ji yàlla moom moo ko sàmmal boppam bi alquran al karim nekkee ci asamaan déglu li saa borom yàlla buur bi subhanahu wa taala la mu wax fala uqsimu bi mawaqi an nujum suñ borom mu ngay giñ yàlla buur bi subhanahu wa taala moom mu ngay giñ di waat fala uqsimu bi mawaqi an nujum mawaqi an nujum mooy mashariqu mashariquha wa magharibuha comme ni nga xam ne noonu la ko sama sëriñ imam al-qurtubi andee mooy fenkukaayu biddéw yi ak sowuka sow waayam kenn ci ñoom ne manaziluha yàlla buur bi subhanahu wa taala mu ngi cay giñ parce que alquran dafa yëkkatiku yàlla ngay xool ca kaw di ca giñ lan la yàlla buur bi subhanahu wa taala di giñ suñ borom subhanahu wa taala ak màggaayam yàlla su ko neexee mën na wax te du giñ waaye lan moo tax yàlla buur bi subhanahu wa taala di waat kon wax ju rëy la yàlla bëgg wax wax ju rëy rëy yàlla moom moo tax mu ne fa fala uqsimu bi mawaqi an nujum mu giñ ba pare mu ne wa innahu na ngiñ bu rëy laa ngiñ yàlla buur bi subhanahu wa taala ne waat bu rëy laa waat su fekkoon ne xam ngeen wa innahu la qasamun law taalamuuna azim waat bu rëy rëy laa waat man sa man yàlla buur bi subhanahu wa taala kon lan la yàlla buur bi subhanahu wa taala bëgg a wax mu ne innahu la qur'anun karim laa ilaha illa allah mbokk yi ngi ñu yàlla buur bi subhanahu wa taala li muy waat waat yu rëy yi ba mu xamal ñu ne waat wu rëy laa waat mu ne innahu la qur'anun karim li de alqur'an gu tedd la laa ilaha illa allah yàlla waat na innahu la qur'anun karim alquran bu tedd la ku bëgg tedd jàppal ci alquran ku bëgg a texe nekk ak allaaxira jàppal ci alquran kenn du nekk ci alquran al karim di ko rëccu alquran daf maa teeral su nekkuloon alquran du ngeen ma seetaan kër gi këru alquran al la waaye nii la ba aljanna yal na nu yàlla boole ci bëgg téere bi yal na nu yàlla boole ci liggéeyal téere bi yal na nu yàlla boole ci ànd topp ndigali téere bi yal na nu boole ci ànd bàyyi li nga xam ne moom la téere bi di tere ba bu yowmal qiyaame bu yàlla buur bi subhanahu wa taala di lim ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon bii la téere yàlla buur bi subhanahu wa taala daal duñ cey boole insha allahu taala yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla buur bi subhanahu wa taala defal maa ngi dénk sama bopp di leen dénk téere bii di alquran al karim yàlla ne ne innahu la quranun karim alquran bu tedd la fii kitaabin maknun boobu fekk yàlla ngi wax ci alquran ba mu ko dencee ci asamaan fi kitaabin maknuun laa yamassuhu illa almutahharuun malaayika yi nga xamante ne ñoom ñoo sell rek ay laal alquran seytaane du ko jege yàlla ngi sàmm alquran maanaam fa mu ko denc ci as ci asamaan yàlla ne ne malaayika yi te ci bir malaika yi ñi gëna tedd ci malaika yi gëna jégué yàlla ñom rek ño am droit jégué alquran alkarim la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin yàlla mi nga xamantene mom moy mooy borom bindéef yi mom mo wacce alquran wallahi kulabul mano len ci alquran alquran dafa am nuraniya am sir rabbaniya bu ci nek kamil bi lele nga gis tubaab bi nan dañu jël kamil bi diko ko dafa am sir bu ci nek ku ci nar lu bon soy jege kamil gi yàlla daal di xëcc leer gogu do fekk dara ay feuilles nga fay fekk yo xam ne dañ ko défaré ci usine bi nalé waye al ma'na al maqsud al ma'na al ilahi al nuraniyatu al quraniyatu al ruhaniya do ko fekk ci al quran al karim parce que tanzilu min rabbil alamin parce que alamin moy mbinde fi lenen luddul yàlla kenn xamul ni ñu toll al quran al karim yàlla ko samal bopam jël leen al quran ngeen fóon ko taf ko ci seen dënn yi يلا بربي سبحانه وتعالى دفل الخيول ظاهر أكباطن يلا يمجي موخدنا في صحف مكرمة يلا جل القرآن الكريم دفكو تي تيري تد تد يلا مجل مرفوعة مطهرة يخمنا يلا ممكو يكت تأثمان يداري كوي لابل بأيدي سفارة كرام بررة خلال يلا بربي سبحانه وتعالى مدادي جل اي ملاك يتد جبريل ليال جل جحكو القرآن الكريم أي فهو في اللوح المحفوظ القرآن بمونة كتير اللوح المحفوظ مصون مستور عن الأعين يالا داري كوي نيوغل داري كوي دوغل فأم أم سكرته داري كوي نب تلقى خمنا موي بتي لا يتلع عليه إلا الملائكة المقربون ملائكة يجيغ يالا رك نيوم نيوي لن جيغ القرآن نيوم نيوكوي جس ولا يمسه في السماء إلا الملائكة الأطهار ملائكة يالا لن لا بل نيوم رك نيوم نيوي القرآن ولا يصل إليه شيطان شيطان من تيجي القرآن الكريم ولا ينال منه من من دار دار دار تي القرآن فالشياطين لا تمس هذا الكتاب شيطاني دنيا لا تيري بي موي شيط xam nga nit ku dugg sa kër kaamil gii nekk sa kër nga toog ay weer laaloo ko moytul bokku ci shayaatin parce que shaytaan yi duñ ko laal gis nga soo nekkee di mooy yàlla da ngay daw kaamil gi doo ko laal mooy tax léeg-léeg nga dugg ci kër gi gis kaamil gi poussière am na ñoo xam ne weeru koor ba weeru koor la ñuy laal kaamil parce que ca la ñuy xaw a tane tuuti shaytaan yi du laal kaamilu alquran al karim moo tax soo toogee waxtu laaloo sa kaamilu alquranul karim tiital est ce que bokkoo ci ñi nga xam ne yàlla dafa dox seen digganteeg alquranul karim mënatuñ koo laal <laughs> wala ayaadu billah shayatin yi duñ laal te téere bi wa laysa laha sabilun ilay amuñu sax yoon bu leen di yeggale ci alquranul karim wa innama taxafu bihi almalaikatu almuqarrabun yàlla day yebal ay malaika ñuy garder alquranul karim yow soo xasee ba bon rek mënatoo laal alquran moo tax ma waxoon leen ne ku mokkal alquran xamalatuma la lu bon ويؤكد الله تعالى وصفه بكونه مكنونا بوصفه بكونه محفوظا في قوله تعالى بل هو قران مجيد القران غوما غنغيني واي يعني بل في دكي هو قران مجيد القران غوما تتد في لوح محفوظ يلا دادي كوي جيل دادي كوي دنت فليغا خامني موي لوح المحفوظ بكرك مكو فاي جيل دادي كوي اندي فيغا خامني موي بيت العزه تي مونيك تي اسمان غو جيتو غيغا خامني جبريل فلكو دان تيلي ديكو اندي يونتبي صلى الله عليه وسلم مكي كون القران الكريم يا yàlla moko ko bopam dem amana la waxi suñ borom la yàlla dal koy téel bopam dal koy denc fu werte wor ci kaw asemania ba wàcceem ba mu jotee rek yàlla dal koy andi fi nga xamne moy baytul izza muy ne jibril ay wa del jël di yobul yent bi ñu dal koy escorter kon insha allah taala jotay bi di ñëw dinañ leen wax ak alquran ba ko yàlla sàmmee ci asamaan waa léegi mu war a ñëw ci suuf parce que shayatin yi duñ tayal dañ daan dem di bëgg sàcc ay xabaar ñu ne kon léegi ci diggante bii balaa muy yegg si léegi nan la ñu def parce que léeg-léeg nga gis ko ab dara war a jóge fii jëm fële ñu fexe ba kar ko ñu xool ndax shayatin yi ndax am nañu droit ndax am nañu accès ci xam alquranul karim ci diggante bi ak nan la ko yàlla aaree ak nan la yàlla doxalee ak ñoom wallahi téere bi dafa jaral borom bi subhanahu wa taala téere bii suñu bëggee am jàmm waa Sénégal yépp wallahi su ngeen bëggee tedd su ngeen bëggee gën dëkk yépp moy lañ ci alquran ma ngi ñaan gouvernement bi nanu gëna jox alquran ak ñooñu alquran gëddam nanu gëna teral alquran di def ay cérémonie yo xamne dañuy teral téré bi teral ko ndax yàlla kontaan xol leen yàlla tollu asaman ne xol malaika yi xam nga yàlla léeg-léeg yan yetbaaha ala almalaika mune wa malaika xol leen xol leen wa Sénégal yëpp de ñu ngi ne di magal alquran nañu fexe gën jox alquran karim gëddëm te ma ngi ñaan gouvernement bi li nga xamné mom la xale di jàng ci école école primaire yeeg yu mel nonu manam programme officiel bu français bi wallahi nañu yokk li nga xamné mom moy mooy heure alquran yi nañ ko yokk bu baaxa baaxa baax ñu yokk programme alquran al karim gën ko jox gëddëm dafa reuy mokal alquran al karim yal na yàlla bur bi subhanahu wa taala barkel len li dañ koy baaxé ñëpp képp ku am alalam bëgg ko def ngal la def ko ci alquran dugg leen ci daara yi ngeen pare ne ay xale yoo xamante ne seen way jur yi génn nañ àdduna wala ñoo xamante ne tey jii yàlla def na ñoom seen seen seen seen way jur yi ñoom ay néew ji doole lañ nga daal di jël xale ba yóbbu ko ba ca daara ja nga ne fayal naa ko ñetti atu yàlla yoo xam ne nga génne ko fay ko xale boobu jàng alquran ba mokkal ko fu mu taree alquran nga am yool ba bu yowmal qiyaame yàlla defal la yoolu ku doomam mokkal alquran ndax yaay yóbbu xale ba ca daara ja mu jàng alquran karim ba mokkal ko génne len seen xaalis ngeen jàppale daara yi ngeen joxe fa dundu ba xale yi mëna tok imagine imaginel xale yi ñu tok moket bi ñu jàngé alcorane ñu ne yow sa xaalis la jar lampe bi nga xamante moy nital xale yi ñu ne yow sa xaalis la jal ventilo bi nga xamné moy upp xale yi ñom ñi jàng alcorane ñu ne sa xaalis la dal kër gi nga xamante ne la maison du Coran 100 alcorane fi rek la am nga xamné yow nga ne caméra bañu caméra we sa xaalis la jal sal studio sàngam sama xaalis la clim ba sama xaalis la wala ma len jox terrain sàngam wala man ma len tabaxal ni la hawla wala quwwata illa يرجون تجارة لن تبور منو لن أميول منو لن كو أمي تلو أبا القرآن الكريم ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرمو جتاي بيدنيو إن شاء الله تعالى نيوخلن نيالا سامي القرآن الكريم ديجنت أسمان أكسوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. l'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Old Dakar. L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau ak accessoires ci ay njëkk yu xarañ. Yeen ordinateur yi ngeen bëgg yi ngeen di internet yépp ndekete multimédia am A ko ay imprimante yi ngeen bëgg yépp ci qualité ak consommable yi ngeen soxla yépp lépp multimédia am Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion.